أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان إبليس الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم موك جولي دي غناو بون سانتاتي سون بوروم سبحانه وتعالى نيوغي جولي سي جامم با دي سانغ سي نيب يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم دي نيان سون بوروم مومي دارا تاول يالله سون بوروم دولي ديف سي ريو مي جام دي جي جيتال سونو كليفه دين ييغا خامني نيوم لا يالله جيتال cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir Serigne Babacar Sy ibnu cheikh Mouhamadinil Mansour macha allah Serigne Mahi ibnu cheikh al islam Mawlana cheikh al Ibrahim Niass ak mboolee mi seen nawle yi nekkandoo ci réew mi nga xam ni réew mi jëm kanam macha allah nga xam ni diine lislaam jëm kanam donc nga leen ñor leen fàttali ba léegi yéen a nga ànd ak seen xarit seen mbokki taalibe seen sa cuun bëgg bàmba macha allah ci seen télé bu mag bi ngeen taamu muy Talibe TV Talibe TV nag nga xam ni macha allah ci émission bi mu leen indil muy tànneef tànneef nag. comme ni ngeen ko yàgg gisee nga xam ni ñoo ngi ciy waxtaanee ki nga xam ni moom la yàlla tànn moom la yonent yi tànn moom la malaaka yi tànn macha allah képp ku baax moom nga tànn muy sallallahu alayhi wa sallam xaatibi nabiina wa imaamul mursalina turandoo suñu oustaz bi nga xam ni yéen it moom ngeen tànn muy oustaz Mouhamed Mbaye oustaz maa ngi lay ziara la bàyyi nga saafanteeg soppee lay seetaan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu law nasabat khadruhu ayatuhu Aizam aizam mun, aizamun aizaman aizamin ahyasmuhu hina yud'a dari sarima mi sayyiduna muhammad eh, ciun mang lay delo nuyo delo la ziar beug bamba Nyana mhm. la jamm salam sutura yalla defal lako amin ya rabbal ak mbollem ko xamanteni ya nga fofu ci talibe tv di nuyu sama waji bu baax cheikh diko yegge yegge waccu Di ko waccu waccu ayam cheikh nak sa la bo xamanteni day beug dawal di wax telephone <laughs> <laughs> naa ko seex dañ la yàgg a buux ci kaw tali bi de <laughs> nuyu mboolem koo xamante ni yaa ngi ñuy topp rek ci sunu émission bi nga xamante ni sang ba ca Medina moo ko moom sallallahu alayhi wa sallam <laughs> tabaarakallaahu ak mboolem koo xamante ni rek yaa ngi bégee te itam di leen wax dem leen ngeen abonné ji ci Talibe TV képp koo xamante ni rek bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah tey rek émission bi dafa gën a alaate ala daw meeti wax fa dëgg yàlla ndax danoo jógee macha allah zone de captage ñëw fii ci yëm euh, Fass Mbao cité comico fekk si fi ki nga xam ni émission bi tànneef la ci télé bi télé wu tànneef bi ñu ciy waxtaanee tànneef tànneef di ko waxtaane macha allah oustaz yaakaar naa yonent bi ak ay soxnaam la ñu tolloon. Mhm. ñoo nga tolloon ci yonent bi ak Khadija. macha allah oustaz tey lan nga nu mën a indilaatal ci diggante sallallahu alayhi wa sallam ak soxnaam su baax soosu di suñu yaay Khadija. tabarakallahu cuun euh, yemoon nañu. Mhm. diggante yonent bi ak Khadijatu. Khadija mhm. joxeel na njool maaka dépense. nanu bàyyi xel ni. xam nga li metti fi mu gane aduna ba fi mu amé 25 ans digënté bobu xawna tang lool parce que digënté bobu amagul stabilité mu ngi dundu mu ngi euh bien-être waaye dundul confort jamono joju mu ngi dund bien-être mo mu ngi teud mu ngi jog mu ngi and ak Abdul Manaf waye dundul confort mais 25 ans nak bima xamanté Khadija nima la ko waxé won ci émission bi nu fi nu jaar ñom ñaar xadija moo gis xadija moo sopp waaye lu jiitu loolu géntoon na mm-hmm. ñuy dem di dem ba ceet euh, li départ mm-hmm. xadija moo doon joxe dépense mm-hmm. wax naa la ñaar fukki at ak juróom ala saxiixi aqaamat aqaama inda sayidina aqaamat inda sayidina xamsan wa ishirina aman ñaar fukki at juróom bu fekkee ni courant amoon na ci waxin nabi moo daan xadija daan fay courant bi bu fekkee ni euh, facture ndox ñoo na Xadija moo daan fay facture ndox mm-hmm. yonent bi xamul lu dépense di jar mm-hmm. bu xëyee ma nga xaaru xiraa di xalaat mm-hmm. nature bi environ bi ñu bind jaam ñi luñ fiy def luy suñ devoir parce que nag faw mu ne ci xool bi ndax cin bu naree neex suba xëy ah, parce que entraînement premier jour ba ñëwee bëgg a toppandoo Balla Gaye wala Modou ci sa premier jour entraînement boo ñibbisee fu nu laal nga jooy dëgg la fu laal nga yuuxu da ngay raay raayal doo ñëw rek tëb ci cent kilos yi da ngay jël un kilo de mm-hmm. yàlla loolu la doon programme ci xol bi. Mm-hmm. mooy teel koo looseel imaan. Mm-hmm. lu ma fi def. ku ma fi indi. li yàlla doon wax te tafakkaru fi maxluqaati wala tafakkaru fi zaati fa tuxliku xalaat leen man yàlla ci li ma bind waaye bu leen ma xalaat man yàlla. muy xalaat asamaan kaweem gi lu ko waral. suuf si tàllaloom ji lu ko waral. lan moo tax ñuy ay xeet di xalaat loolu. motax motax nak amon nag na ngor gu tolni ni mbaa nga ni cuun yonent bi mustalek musaf mu xorom mu jambat mba mu kani mu jambat mba mu neex mu geureum mba bu nakari mu khas amma taama mo mhm. mbolem ñam bok musa tegal mhm. falam yam dah du ni du tag wala yesi fi du do ibal khul mhm. daimul imul foko fek rek ma nga ñu bégte sallallahu alaihi wasallam khadija du joxe dépenses du joxe dépenses du joxe dépenses du joxe dépenses abdou manaf bayu aldin xam ni moo yore yonent bi mm-hmm. moo Xadija mm-hmm. seen seen génnu àdduna ñetti fan la mm-hmm. ñetti fan moo dox ci diggante bi Abdu Manaaf ak Xadija ñetti fan moo dox ci diggante bi wa amadduhumin thamani ashhurin wa ayin yawman tawaamuhu nasaaru zazamami bi Abdul Manaaf di am quatre-vingt-sept ans wa amadduhumin euh, boo koy calculer nga naan del 4 he 5 mu nekk ñaata 9 9 ak mim 40 mu nekk ñaata 45 45 49 49 samani ashhurin wa ayin yawman tawaamuhu nasaaru za za ma mi racine 7 la. 7 mhm. plus 40. 47 47 plus 40. du 87 87 mais Abdou Manaf di am 87 ans. Mhm. ah ci la ci la ci ci ci ci ci la génn àdduna. Mhm. mais Abdou Manaf bi mu amee 87 ans yooyu. ci jour dëj bi. muy altine bi talaata bi àllarba bi yeneen bi mu ngi kër Abdou Manaf di stressé lool parce que l'islam nag Abdou Manaf taxoon na mu am doole daan na wax naan bu ngeen gëmul diineem ji seetaan leen ko njaboot naa lool maa jur taalib. maa jur jaafar maa mhm. jur uma hëni maa mhm. jur oqayla maa jur ali ibn abi taalib mhm. sama sama sama jarbaat bi sama doom ji saa yu génne di doxantu yëg leen ni waa Màkka ku ko xoos mbaa ngi xuri ko sa kër laay ndékki see mbaa ma añee fa uh-huh. musta may nit mu laal yonent bi moo moo géré woon doole ji mais Xadija moo géré woon teraanga ji xam nga lu mu daan def hmm. bi l'islam déparé xadijatu hmm. dafa daan bayyi dafa daan bayyi dafa daan bayyi ba guddi hmm. ba guddi jot ba guddi jot bala bala bala may reer lol sax bi l'islam commencé bu guddi musan jot day feug buntu ñoñu buñ bëggé bëggee yonent bi mu may leen 500000 hein waaw waaw ñi bañ yonent bi mu may leen 250000 ni leen nak dama leen di ñaan diinem ji na ngeen ci maandu bu leen nexé bu leen dugg bu leen dugg waaye maandu leen xam nga kon koku mu ngi ku yor sa teraanga nag ku ku nu tuddu tudd nu ko olof di waxate ku ku ku ku ku yor sa sànqal. ëmb sa kersa ëmb sa kersa. Mhm. xadija deux cent cinquante mille la xadija daan joxe xadija deux cent cinquante mille pour ñu bëggul yonent bi. Mhm. cinq cent mille ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. noonu la ko xadija jàppee noonu la ko xadija jàppee mais problème bi mooy diiru muy joxeel njool màkka dépense. Mhm. l'islam bi muy wàcc. jigéen ñëpp war nañ ci mën a jàng parce que balaa may dem ci ci dégg. xadija euh, li muy joxe dépense yëpp. teewul yonent bi mu ngi xaaru xiraa di xalaat di xalaat di xalaat ba jour bi jibril ne cëpp ci biir kër gi euh, biir xaaru xiraa hmm. euh, léeg-léeg nga dégg boroom xam-xam ni yonent bi jibril daf ko doon dóor wala daf ko xoj wala daf ko tamponné de waxatahu hmm. daf ko doon bloqué yonent bi da doon forcé pour daw génn waxatahu mu koy bloqué pour jàngal mu koy contré waaw mu koy contré hmm. contré boobu boobu yonent bi nuboo gi ñëwagul pour kàttan gi mat insaniye bi moo doon dox looloo waraloon jibril ëpp ko doole mais bi nuboo bi ñëwee rek mën naa puus jibril yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw parce que parce que parce que bàyyil xel ni yàlla jaarale jaarale na yonent bi géeju kàttan fukki junni ak ñaar fa xudratun géeju kàttan fukki junni ak ñaar pour wàññi kàttan pour pour ah, kàttan yàlla nee na jaarale naa ko ci géeju kàttan fukki junni ak ñaar saa yu ma xëy di ko ci sóob lu yàlla bind moo ci ëpp kàttan zi quwatin inda zil arshil makin minnatun géeju xéewal jaarale naa ko ci fukki junni ak benn karaama géeju teraanga jaaral naa ko ci fukki junnet di wàcc saada manzila hidaaya nubuwa ba mu jeex waaye loolu taxumaa jug daa am lu ma tax a jug muy xadija njool màkka <laughs> Cheikh yaa ngi dégg mais xadija problème bi mooy yonent bi mu ngi raaru xira jibril nee na cëpp wàcc indil ko iqara iqara bismi rabbika mu naan ko maa ana bi xaar yi jànguma jànguma bokkul ak maa ana bi xaar yi mooy firi xunt mais maa ana bi xaari mooy jànguma mu ekara ko iqra jangal is karara atta marratin yoonu yoonu yon mu naan ko iqra anta khatimun hmm. nuzumi hmm. jangal jangal bi yonent bi amé espace jibril khadjal ko rek ci la daw genn daw duggu kërëm duggu neegu hmm. bu sun jigenu tay da ñaan la do tok ah, sa morom yëpp di liggey am yow di nga jommi gisagoo dara waaw <laughs> ah, wala dit parce que nak attention jigen di joxe dépense sa yo xeye nga jël lek dem tok fenn bu don sun ay jigen da ñaan tok nañ ko top Ah, jubul jubul mais Xadija cheikh li li yonent bi daw dugg këram di yooxo zammilu nii zammilu nii sàng leen ma sàng leen ma zammilu nii tarfaxul xumami sàng ma nga dindi sama njàqare sàng ma Xadija daf ko sàng mais bi mu ko sàngee Xadija tamit naa la xamal dara nekk nekkul nitu falaa falaa de hmm. xamoon na dinay seen ay saa de daf ko jàng maîtriser ko xam malaaka buy li muy bañ xam jinne lu muy bañ parce que bàyyil xel ni digganteem ak yonent bi géntu ko hmm. laaj na ko war a Waraxata ibnu Nawfal mhm. joxoon na ko ay signe ni ko di nga mës a sëy ak yonent mhm. te mooy yonent bi kon du woon jaahil daa dëgg mhm. Xadija du woon jaahil naa la wax lu yéeme ci kanam digganteem ak Aboubacar digganteem ak Aïcha hmm? Xadija Xadija toog ci kër gi gis yonent bi naan naan naan sàng ma sàng ma sàng ma malaaka du gis bopp jigéen ju mesure xadija bu muree ko bi danaan ko mu ngi ne di dem mu ngi dem mu ngi dem xadija mu ngi nële bu muuroo mu ni ko mu ngi ñëw mu ngi ñëw xadija commencé am yaakaar bu muuree kuwaatee mun ko mu ngi nii di ñëw mu daw na daw na bu muuroo mun ko mu ngi nee di dem xadija ni du jinne ndax jinne faalewul karaw ak ñàkk karaw kon du jinne laxas yonent bi sàng ko fi mu tëdd di di mm-hmm. ndax ndax bàyyil xel ni alxuraan bu daan ñëw ci yonent bi sax même bi bi bi l'islam continuer mm-hmm. alxuraan bu daan wàcc bu ko fekkee mu toog day ñëpp loxo yi da ngay gis mu ñàkkatooy xëpp xanaa déggoo yàlla inaa sanulqi alayka xawlan saqiilan ndax alxuraan bu daan wàcc. day ñaq fi mu toog. day gëmm. ni ne la ko daan def nu ne nu ne. mais mais yàlla ni ko nag attention damay wàcce ci yow loo xam ni waxi mag la du waxi gone de problème bi nag comme alxuraan a ngi commencé wàcc. te te yaramam bi maîtriser gul lii boobu temps boobu. Uh-huh. faw mu def ay ay ay gestes. nabi xadija muur ko. Hmm. daw seeti war a xata ibnu nawfal jaa at li war xata tax ki ma rawaawu la haa waxaala naa muusu muusee zaaka fab tasimi ni sama borom kër àll ba la jóge mu ngay yuuxu bu ma muuree sans bopp bi mu ni ma dem na bu ma muuree sans bopp mu ni ma mu ngi nii di ñëw di tiit war a xati ibnu nawfal dafa mënoon seet hmm. samp samp samp samp samp samp samp rek si gi xool ko ni ko yàlla te ni kunt fii ha saaliman jazian wa kuntu xayan la dal ixraaji min idami hmm. ni ko ah naa muusu muusee lii de bu dee dëgg la hmm. la ma la waxoon ni la sa jëkkër yonent lay doon ñor na tàbbi na njàppal ni sa jëkkër yonent lay doon wax ko xadija xadija muuñ mun ko zaak bu dee li nga wax dëgg la hmm. fab tas mi reetaanal te xam ne xayru waraa la ko yàlla booleel bi xadija jug di dem waraxata ibnu nawfal daal di ñaan ni ah yàlla te ni ak a neexoon kuntu ma nekk parce que xam na ne du fekkee ndu boo gi ndax lay dee yàlla ni ak a neexoon kuntu ma ne saaliman di mucc ma ànd ak yonent bi ànd ak yonent bi jazi an mu yëkk bu mat sëkk wa kuntu ak neexoon ma nekk xayan di dund hmm. la dal ixraaj min idami kon xamoon na ne yonent bi dañ ko génne màkk dégg nga la dal ixraaj bañ koy génne mi ne idami ndax ndax nooneel <laughs> ak neexoon ma fekkee loolu ak neexoon hmm. di jàmbat loolu di wax loolu ndeysaan war xata ibnu nawfal njool màkk ñëwaat ci kër gi hmm. xadija ñëwaat ci kër gi bi xadija yegsee ci kër gi ndeysaan daal daal ni ko daal koy jël ni ni ko li ma xam ci yow ci ci ci mën a suturaal nit. li ma xam ci yow ci mën a sagal gor. Hmm. ndax na Xadija bi mu nekkee ak yonent bi attention nit da daan ñëw toog ni ko Alaaji damaa soxla foofu problème cinquante mille yonent bi musta am junni bu moomal boppam damaa soxla cinquante mille ndeysaan bi day toog rek Xadija day génn nànk wëri moo tax sa grand homme. y a une grande dame y a une grande dame. <laughs> derrière lui man dans son derrière laay wax. nu ma ko sentir mais Xadija bu nit musaanam problème xaalis. ñëw <laughs> jàmbat bi day wëri. Hmm. dugg biir néegam li ko yaa rasool yaa muhammad bu nabi duggee mu jox ko cinquante mille ni ko nayam suñu diggante génn nga sa poos nga jox ko ko nabi bi muy sukkuraat ñetti dërëm la fi bàyyi dinaa la ko musa wax jour <laughs> <laughs> mais li tax mu bàyyi ko fi ak bi muy sukkuraat nan ak nan la ko doxalee oh. <laughs> sallallahu alayhi wa sallam xadija daa di daa daa daa di kontaan commencé am yaqin gën a am cofeel ci yonent bi mm-hmm. waaye li yéeme mooy taar bi yokk parce que nu boo gi dugg na bàyyil xel ni xam nga nubuwa nubuwa tampon la mm-hmm. bu nekkoon ci digg ginnaawam dinaa la wax ban côté la gënoon a nekk ci diggante ñaari mbagg yi dinaa la wax ñaata pepp karaw moo fa nekkoon nu xaati mu nubuwa bi newoon ci yonent bi mm-hmm. dinaa la wax lan lañ ci bindoon dinaa la wax kan moo ko njëkk a gis kan moo ko mujjee fuun avant nabi di dem di wuju boromam dinaa la ko mus a wax xaati mu nubuwa bi yooyu yëpp insha allahu taala mais xadija mm-hmm. nubuwa gi dugg na taar bi yokku na leeraay bi yokk xëyba gi gën a yokk léegi-léeg gis nga del toog ngay imaginer ngay imaginer yonent bi bu nit mënoon jàkkaarloo ak moom seetu ci lexam. Mhm. mu ba mu raw seetu kon nu mu mel. lii doy na waar xalaat ko ñu ne la seetu gis nga seetu ngay gis sa bopp parce barke alxuraan nga jàkkaarloog lexu yonent bi moo ko gën a leer. nga nga nga imaginer ñun la. Hmm. ni muy gisee leer noonu lay gisee lëndam nga xalaat kan la nan la war a mel. ngay hmm. jëleel imagination yi nga bañ a déglu kii firi yow nga toog ngay décortiquer nabi ci sa mémoire xel. kon maanaam su ma oustaz Mouhamed Mbaye waxee yonent bi. dama war a dem toog yim mook yëpp may may delloo si waat wax yi. teg teg jëmm ji man jëmm ji laay teg. Oh. jëm moom jëmmam Cheikh jëmm yonent bi laay teg. Oh. léeg-léeg damay ci damay damay jooy. ba sama rongoñ tuuru parce que damay toog man rek. ni ma ko xamee di ko firi. Uh-huh. may xalaat mais bu ñu ci daan seetu nu mu war a mel moom. <laughs> bu ngeen dajee bëccëg boo dee tàppet da ngay daw boo duggee seen kër yoo xam ne jommi nga. ndax bu naaj bi tàngee day mel ni ku ñu puudar. peru bët bu ñuul bi daawul taxaw benn place da daan daw daw nii léeg-léeg ma tooñ Balla Gaye ma ne ko comme njool màkk ci peru bët hmm. na bi peru bët yi dafa daan daw gauche droite gauche droite ngay xalaat bu naaj bi tàngee foo toll karaw gu ñuul gi ngay gis comme ça de lumière day tàkk nii di def nii karaw gi nga xamante ne lu mu raxas raxas karaw gi day gën a ñuul may na yooyu sama xel léeg-léeg ma xalaat ni waaw koo xam ne taqandeeram du feeñ ñit ñi loolu waru leen a ku amul taqandeer taxaw déggee tànk bi du xalaat loolu ci njool màkk ku tek tànkam du marqué nga xol sa takandeer du feñ bo dé reetaan muy gëna lèr jeu de lumière lèr bi ci sëdik xam nga yoonent bi nak yàlla organiser na ko civilisation ba ay bëjëm ben du laal moromam parce que yàlla bëggul muy lek lek gi tak ci bëñ sallallahu alayhi wasallam wu kër na bëñ bu ne bëñ bu ne laalul moromam lu mu lek ci saasi dem na ba pare ma ni xoolal isa takallama bu daan bu daan wax ri a ngay gis an nuuru lèr gi yakhruju muy gënné min benn xanaa yaa ci digënta sàkkar yàlla ñu ni la nattal loos bi ni meloon te ibriq dafa mel ni baraada yu mag yi nga xam ne loosam melu ni comme sun ba sun ba basam fii dafa def nii nii nii jóg après may imaginer dënn bi loxo yi yéen yi ma ni non yàlla yàlla ak ba ak ak ak ak ñu ne la xoola tiflit ni mu lewetee yàllaa ngi defaree tiflitu yonent bi lem ya nekk aljana fa min fa riixu fa min asalil janna laa ilaha illa allah Cheikh ndax yaa ngi xalaat yooyu tiflit yaa gën a neex lem yàlla ni la amal ja euh, amal euh, nu mu tudd euh, wa shaaruhu fa min al jannaati yàlla ni karaw yonente bi maa ngi ko programmé ca gàncaxu aljana ya sallallahu alayhi wa sallam jannaati wa nabt amal kafu min karami loxoom maa ci def xamante ne bu la nuyoo yow sa loxo day diig ci biir loxoom day mel na lii lu nooy lii hmm. day muuraat sa loxo yi ngay xalaat loolu avant muy nekk yonent yàlla suturaal ko l'islam gi ñëw nubuwa gi ñëw jalaal bi yegg si jamaal bi yegg si période boobu nan la war a mel sallallahu alayhi wa sallam ci âge de 40 ans <laughs> te te te te 39 ans 6 mooy des mu nekk yonent 39 mm-hmm. ans 6 mois yi da daan romb garab waraa xool li nuyoo la ah man dafa di def nii léeg-léeg mu romb doj benn bu ne nag ni nga doon nuyoo bokkul ak sa morom ni koy nuyoo bu rombee garab mm-hmm. mu ne ko asalaamaaleykum yaa xeer la waraa taxaw dafa am voix bu ma dégg léegi moom rek ci àll bi waaw bu rombee bu rombee bu rombee bu rombee xeer bu xeer bi dee ba tollu ne ko assalaamu aleyka ya afdalal wara mu daal di sëgg di xool ba xam xeer bi la wala du xeer bi bu avancé tuuti dégg xeer bi tollu cox salaamulaay aleyka yaa xayral wara mu geesu léeg-léeg jibril romb ko ni ko asalaamu aleyka yaa afdalal xalqi jibril romb ko xooloolu bu xoolee bu xoolee yaa dalan daan di génn ruya ruya ruya khitabun hmm. dan dan waxante ak mom kazal ilqa'u min malakin lene mu rombante ak malaka mun ko assalamu alayka ya khairul wara maratibul wahyi la tartab wala tahimi affaire bi def ko ben pression bo xamne ne lu mu luy wax lu mu luy wax ne ah sama tua nak warna jot nak 40 ans sallallahu alayhi wa sallam léegi nabi bi mem 40 ans ñaata la khadija am ans la ko takke bim koy Khadija ngi am 40 ans. Hmm. kon déjà xoolal période boobu Khadija ngi am 65 ans. bi Nabi di am 40 ans parce que 15 ans la magee Nabi. Hmm. Nabi bi muy am 40 ans kon Khadija ngi ci 60. 55 ans 50. 50 55 ans. Hmm. xoolal 55 mooy mujibu yàlla nangul. Oh. miim 40 la. jiim 3 la. yaa la ba 10. yaa yaa dix la ba deux muy muy cinquante cinq muy mujjibu nga dégg mujjibu yaa mujjibu yaa mujjibu mm. faqbal du'a ab bi muy am mujjibu net bi muy am mm-hmm. mujjibu net ci la ci la ci la ci la ci la ci la lislaam ñëw ci ay loxoom mm-hmm. yàlla def barke nag ci xadijatu mm-hmm. est-ce que xam nga ne yonent bi bu bopp bi daan metti ba kenn mënu ci dara xadija moo ci daan laal loxoom mu dañ te yàlla moom la yónni suñu yaay xadija moo daan moccal yonent bi boppam kenn mënu ci dara ndax bopp bi ko daan dal te bu ko xadija laalee mu tane Xadija nekkee noonu ak yonent bi nekkee noonu ak yonent bi nekkee noonu guddi day joxe dépense day yor kër gi. Mhm. bu 3 heures du matin jotee courant amul mën na dajag till mën na dajag gaynde mais mu ngi fëgg ay buntu kër jàmbur di leen jox ay teraanga ngir lan cofeelam ci yonent bi. ñii mu jox leen 500000 ñi gëm ñi gëmul mu jox leen 250000 noonu la doon doxee ak yonent bi. Xadija nekkee noonu nekkee noonu est ce que xam nga ni wax naa la ko benn journée la. Mhm. bi ñu demee ba toll ci. Mhm. Aïcha a judd. yaayam. papaam. labbe bi dafa ñëw ni ko ah ki seet ki ki ki nga xam ne moo war a rewle ñu baal ma ci kàddu bi hmm. ni ko ah ah Aboubacar li ma la daan wax rek soxna si wéram mayu ko wéram mayu ko hmm. mu mu indaale doom benn doom ji mooy dund wala yaay ji mooy dund Aboubacar da daan nangu yaay ji dund ndax bëggul yaay ji dem mais bi mu demee ba toll ci Aïcha hmm. kii defar ni ko ah faw kenn dund mooy yaay ji mooy dund wala doom ji mun ko lool nag mënatuma ko wax dëgg yàlla bëgg naa dégg papa bëgg na ko dégg aboubacar stressé lool lool xelam dem ci sayyidatna khadija mhm. léegi khadija magena na yonent bi 15 ans magena na aboubacar 17 ans parce que 2 ans la aboubacar la yonent bi magee aboubacar mhm. aboubacar do ñew kër yonent bi ni ko yaay umul mumin yaay ah soxna si dem ngi tollu digënté waye kiko wara défar né faw dom ji dund wala yaay ji kenn ci dund té bu ma sañoon dinaa dégg yaay lan mo ci sa xalaat mu ñu ko nañ dem khadija ak loxom yu tedd ya mbaxam ndeysaan tiim yaayu yaa yaayu Aïcha hmm. jël loxo bi raay ci jëbi dawal ci biir bi ñaan ëf ëf ëf ëf ëf ëf toog jékki ba caag mu tàllal ñaari loxo ñu lal sër hmm. mu mu Aïcha génn tegu ci ay loxoom mu defar ba mu jekk laxas denc ne wet ci wetu yaayam Aboubacar bég lool xoolal yàlla nekkate jigéen jooju ñu defar bés boobu ne ah Isa mhm. dina bokk ak Xadija benn borom kër mu yonente bi bu ko xamul du ko ñoppate ba mu nooy <laughs> te yëg nga ne ah Isa kullu ku ma sa fiire ci àdduna Xadija ci première Xadija la doon fiire Xadija mi te ñoom ñaar fekkante wuñ ci sëy Xadija génn na àdduna taabu diide ah Isa doo koy ñëw ñoom Fatima rek ñoom ak ah Isa parce que Xadija biñ koy may Xadija Khadija biñ koy may biñ koy may euh, déggal yonente bi biñ koy may Aïssa six ans la Aïssa am neuf ans la sëy li tax amul kër doom yonente bi fi mu toll ci fi jigéen di toll pour mën a fóot uh-huh. fa la bi génne àdduna sallallahu alayhi wa sallam Aïssa nag soixante-six ans la dund am ñu ne soixante-dix ans mais gis nga noonu Xadija nekkee ak yonente bi nekkee ak yonente bi ma doog lay wax euh, léegi nag Xadija lu mu mën ci sérieux def na ko lu mu mën ci jàppale yonente bi def na ko Cheikh daju Abdou Manaaf la ñu toog wax naa la ñoom ñaar trois jours la ñu rawantee wa an salasata ayamin xadijatun xattawat wa zalika wa zalika amul xusni wal xumami gis nga bi ñu toogee trois jours bi nekk ci daju Abdou Manaaf Fatima dugg néeg yaayam gi yaayam mel ni mel ni luy def nii mu xool ko ni ko yaay Khadija xaw a mel ni kuy def ay ay melokaanu kuy wuy ji boromam Fatima daw dugg kër ni jaayam papaam ni ko ni ko ni ko ni ko papa kaay nga xool sama yaay nu muy def nabi bàyyi ko këram parce que musul dégg ñu jàmbat ko feebaru Khadija dugg ci kër gi ñëw ci lal bi aj tànku bopp ah, fa Khadija dugal dugal tànkam teg ko ci pooj bi di foog moom di ko raay nan ko wallaahi yaa ngay dem tey fii yaay waroon a taxaw taxaw nga ko ba mu mat fi bàyyi waroon na taxaw taxaw nga ko ba mu mat hmm. fi soxna waroon na taxaw taxaw nga ko ba mu mat musuma sentir ci àdduna fi ma la xamee vingt cinq ans ba ni may duggee sama quarante ans jëm cinquante ans mus ñoox ñun ñaar ba sa kàddu jóg jël nga sa alal def ko muy sama tour jël nga sa sant def muy sama tour jël nga sa temps def ci man mbollem lu yaay waron taxaw taxawé nga ko leer na man di da ngay wuyu ji sa borom wayé sa génn aduna mo téwa makatal màkkatal génné ma makka niko ko na man ni tànk yaangi won makatal màkkatal duma génné makka wayé génn nga aduna rek wa makka dañu may génné ta khadija ngi fon nabi musta génn makka di tànk khadija mu ngi won makka nabi génnul makka kan la dem medina bi khadija abdou manaf mën mais gis nga khadija bi muy sukurat hmm. ba yonent bi ni ko nuyul ma sa wujju aljana hmm. dafa siggi xool dafa ni ko nuyul ma say wujj rek yem ci rek ja siggi ni ko loo wax mu ne ko nuyul ma say wujj mu ne ko damaa mujj mu ne ko waaw mu ne ko waroon nga ma ko wax nga présenté ma leen ndax damay sentir ni kon man ki ma bëgg am na ñeneen ñu ko bëgg bu boobaa dinaa leen teral teral teral ba ñu xam ni bëgg naa la nit boo ko bëggee mu takk beneen jabar seex danga ko war a gën a bëgg yaayu saa bi may gane àdduna ñoo ma réew si woon waaye yàlla nee na ñu ngi aljana ñu ngi nee taxaw di la xaar waxadra ak niswatun xatxul na asiyatun wa bintu imrana tiikil xuuru laa takimi xadija nag doog a génn àdduna mm-hmm. bu la neexee ñu taxaw foofu waaye bi xadija génne àdduna li li njool màkk daj balaa ñu dem ci keneen mm-hmm. dinaa lax fi mu jaar dinaa lax coono yi mu daj mm-hmm. nabi bi xadija génne àdduna lu nit di daj ci àdduna pour daj coono ba nit war la kaa wax sarangooñ tuuru distance bu gàtt boobu njool màkk daj na ko léegi nag maa ngi lay déglu macha allah man man man bokk na xëy na ci li ma li ma li ma li ma xaw a jaaxal te xam naa ni jaaxal na it ñu ne avant ñuy tëj épisode bi mooy Xadija ëppale woon ci màkka bu kon bu génnee àdduna alal bi yonent bi la redevable mooy yonent bi moo ko war a doon te après ñun yonent bee gën a ñàkk ci màkka maanaam loolu bëgg naa ko comprendre yi parce que gore xam nga booba miraas xewul mhm. séddale moo amoon miraas lislaam a ko indi dégg na dëgg xam nga miraas mhm. l'islam day wàcc au fur et mhm. Mhm. ñëwul rek wàcc global ñu joxe ko. par étape par étape histoire mooy am mu wàcc xare am mu wàcc. Mhm. xeex am mu wàcc xuloo jëkkër jabar am mu wàcc situation am mu wàcc. noonu la l'islam wàcc. mais déggoo li wax bi Xadija demee bàyyil xel nag kuy tabe ci kaw suuf nabee la gën a tabe. sallallahu alayhi wa sallam lu mën a teralee Xadija pour joxe àllam ji nit ñi ñaanal ko njool màkk def na ko. ndax fi ko Xadija uutu woon. après naa la bi Xadija génne من أجل موتهما جناو ديو خديجة عبد مناف الأعداء أنو ماك يفيب نو يقتامي أو فقلا نو يقمم نو إلى المستفع سونجين جول ماك مكسيري نو يبرر الأضرار اللورك من الإدمينجير سحر أبارك خديجة لا تخاو لا تخاو لا تخاو لا تخاو لا تخاو بوم جين ماك دم مدينة منورة لين كي توب لوكو سونجو بيرن سخنا إن شاء الله تعالى ما شاء الله وااا وايد الدنيا كخينة لا جاله بنو كمني أكتر تلو أستاذ مي دجوم تشالو نويل دين الإسلام أجنويل waa xam nga Noël ñi ngi wax ni Isa ibnu Mariam le 24 la judd ñu ni le 25 la judd waaye li wér te wóor ñaari bés yooyu am na bés bu mu ci juddu dinaa la xamal dara nag yool màkk ku ko gën a jege yaay gën a yey ci moom ba nga ganee àdduna ba fii nga toll mos ngaa dégg feetu aadama déedéet mos nga ko dégg déedéet feetu Moussa mos nga ko dégg déedéet feetu Yaxya mos nga ko dégg bu Daawuda bu Isa rek ngay dégg 24 décembre 31 décembre à part moom mawlidu nabi parce que moo tafu ci njol màkk maamadat fatratun mina rusul illa an basharat xawmaha bikal anbiya mm-hmm. yonent bi soo mission di waaj a jeex di nga déclaré bu yonent bi mm-hmm. Isa bi mu ñëwee dafay raay ay silmaxa ñuy xool muy doxloo ay lafañ ñuy dox hmm. muy waxloo ay nit ñuy wax muy dugg ci almeer dekkil ay néew ñuy dekk hmm. biñ ko laajee ni ko lii nga am benn yonente dootu ko mun leen man jamonoy médecine laay ñëw jamonoy xam a ngi ñëw hmm. man jamonoy médecine ci laa ñëw mooy de nit ñi di feebar ma leen di faj waaye nag wa mubashiran ah wa mubashiran moo lay wan ne kon kooku ëpp doole mooy kado bi wa mubashiran kaay ma bégalee leen bi rasulin ci yonent boo xam ni yati mooy ñëw min baxdi ci sama ginnaaw ismuhu turam dëgg-dëgg ahmed lañu ko wax parce que ahmed mooy daw asamaan mais muhammad mooy daw ci suuf te Isa loolu ca kaw asamaan la ko jëlee waaw déclaration la bu bàyyi ko ci yàlla mhm. moo tax mu ne ahmed mu ngi mel ne tey yonent bi mhm. bi muy jëli julli bi muy départ mhm. muhammadul insaan la waaye bi muy yéeg muhammad rasulullah la yéegee bi mu demee ba sidratul muntaha muhammadul nuur la duggee lolo waral jibril ak alburax mënatu ñoo dem ñu taxaw xaar ko ni ko wa ma minna ila lahu maqamul ma'lum fi la ñuy taxaw xaar la legi nak bi muy dugg ñee comme amuñu leer gogou yàlla branché ko muhammadun nur bi muy dox ci tap yàlla nak ba ci yag mu simmi yàlla ni ko non yow fi do fi simi dal musa nak mom waxon waxoon ko ne simmi dàll la ndax alayka innaka bil waadil muqaddasi toi mais yow yonent bi amu droit simi dal nak tap bi yow rek la fi don xaar wa ma amaral mawla lahu xalqa alayhi kazil wadi qul haza siwahu masil mën nga fete noël ci lan ñaanal sayna Isa ndax la nu farriqu bayna ahadin min rusuli min rusuli yàlla neena amolen différence su ben yonent ak beneen yonent ñaanal sayna Isa loko ñaanale yalla na yàlla yokk leeram yalla nañu yàlla tass ci barkem parce que yàlla moko tan bu bok ci ulul azmi ñaanal ko ay zedel mier lu muy def ci 24 décembre ak 31 mel ni moom la Isa dan jaay lu mu ciy def ante li ma gis nga cheikh bi gëna don danger yonent juddom nga koy fete ak musique dama nan waaw mais musiciens yi est-ce que xam nañu 24 lan la est-ce que xam nañu trent lu toll ni yonent. ngeen teem jub seex nga def ko musique bamba. est xam nga gars yi mesuré wuñu la ma mesuré man dama toog di ma xaw barki dem di ci xalaat ma ni ne waa mais musiciens yi bu doon maay ñoom ñu leen joxee ñu leen joxee fay leen benn cachet pour 31 décembre nañu bañ nañu bàyyi xel ni yonent la bu fekkoon ni dañuy dañuy feetal seytaane. bu boobaa jar ko. la xam nga feetu seytaane mën ngaa def musique. mën ngaa def nangam mën ngaa def nangam mais lu toll ni est ce que xalaat nga jouru gàmm nga koy musique. déedéet waxuma la jour mais rek am ci bi. ah yow nga waroon a ba indi musique sa yi bu sa yoon nekkul xam nga yàlla ñuy musique yoonam newu ci kee. mais sa mayu la ko. parce que da nga naan ay dëkkandoo lañ. mais lu toll ni yonent yàlla Aysa nekk yonent. ak fi mu jaar judd ñu tuumaal way juróom bu jigéen ñu dafa xool ba ba am ko ko ëmbal mm-hmm. nga dégg mu ne a'uuzu billahi minka in kunta mm-hmm. taqiya mm-hmm. bi mu indee Aysa ci dëkk bi ñu ne ko waxal doom ji fu mu jógee yow mi nga yaa oxtu Haaruna na ak ak ni sa bàyyi teddee mu joxoon leen Aysa fa asharat ilayhim fa xaalu kayfa mu man kaana fil mahdi sabiya Aysa ne ñokki jug toog liir buy doo ko wax moo tax yowmal xiyaam bu nit ñi di di daw di songu yonent yi bu nu songee Aysa dafa leen xaar leen damaa am bor bu ma war a régler liir war ta te ba may liir damaa wax loolu laay régler <laughs> <laughs> yow mal xiyaam loolu lay wax. ma li jënd loolu pare waaw inni Abdoulahi. <laughs> Uh-huh. xool liir boo xam ne day wax. waaw man Mouhamed Mbaye mii rek boo ma doon gént tey musique ay bongomaan yow fu ma jëm ah, ak ak YouTube bi wallaay dëgg la ah? wallaay dëgg la. wallaay ma imagine takk soxna kase nga def ko. Uh-huh. ki ki nga yilifagul bokkul ak ki nga yilif nit bu newul sa keur mën na mel ni ko neex waye bu ñewé sa keur ko charte bi mo fi dox ñak bi dugg ci eh, internet bi rek ñi lay xass dañaan lu tax jabaram du muuru bi nga koy takk nekkagul sa jabar bi ay bi ay khairu jubee la ne sa jabar wax fa deug yalla bu sa keur nak ya xol ni ko neex mu melni <laughs> wala dit deug la mais mëno mais mais oui ma gis nga xaj buñ la ko jaayé wala xar séras nga ni mako mom ma ba fay borom d'accord ya lew la mais tekkil buum gi dox ba xam dalay top pour mu topp la faw mu ne sa kër di lekk ci ngooñ mi xàmmee sa baat ak bi nga dressé ko boo génnee mu xàmmee la mais jënd lu bees mu topp la lu bees amul fenn wallaay dëgg la ah, mais nit ki da koy xool ren bu déwén mhm. ba déwénaat nga xool après nga ne ah kii defar na wala defarul dégg la waaye ah, mais kuy togg nag dooree ko xam le nit ñi danoo métti de <laughs> yàlla xam na ko nga xam ne weesoogu ah wax dëgg yàlla léegi ma ma macha allah am na aussi oustaz beneen actualité boo xam ne tamit wër na réseaux sociaux yi xëy na laal na diine waaye tamit laal na yoonu murit benn daayira bu demoon di siyaar ji ñu dajale seen alal jox ko jëwriñ ba mu jël ay kayit def ci biir tamit loolu sa moom kàddu ci loolu mo li ma gën a yéem xaaral cheikh mu ngi ñëw xam naa cheikh moom fi mu toll nii cheikh dafa am question bu bu bu ma kii laaj euh, bu ma bàmba laaj. Hmm. benn question bu ma bàmba laaj. Hmm. bu ko defee bu ma Cheikh jëlee ma hmm. wax la ci. Cheikh bàmba dafa ne dafa am benn daayira. bu dem ca mu Mountakha seetaan naa ko. 200000 la. mu dagg ay kay def ci. dinaa ci wax benn bi pour maandu parce que bi ci des duma ci wax man bu doon sama gis-gis man wallahi wal quraanil karim bu ko Serigne Mountakha yegoon danaa leen bu leen ko siiwal na yem ci suuf. dëgg man Cheikh sama gis-gis Serigne bu buñ ko ko déclaré woon ci saa si sama xalaat daa wax de danaan leen teg leen ko ci suuf ngeen suturaal ko bu mu jëm kaw mais moom it responsabilité daayira yow no yow yow ki nga yaakaar sa yoonu aljana boo ko nju njaaje yow ku la yóbbu <laughs> ah jaaxal na ki nga xam ni moom nga yaakaar borom mbig mi seexul seex Serigne Mountakha nekk sol jëmmi seexul xadim yow nga war yow de jumaay Tuubaa ku la ko joxoon doo ko tabax. dëgg la Masaalikul Jinaan ji itam ku la ko joxoon. wallaay dëgg la ah. wallaay cent mille francs. nga jël ko te te xoole yàqal na ci boppam ba faw wallaahi dëgg xeeb na ci boppam ba faw mm. xeeblu na ci njabootam ba faw mm. daayira bi mu yoroon xeeb nañ ko ba faw waaye waaye waaye bu bu ma yé bu bu ko sëriñ taxaay gu neen leen dëgg la lijjanti leen ko ci suuf. fii may 200 millions 200 mille safu la. billaahi ndax man satara musliman ku suturaal jullit. wallaahi dëgg la satarahullaahu yàlla suturaal ko. wallaahi même tey bu indiwaatoon 200 mille yi 200 mille yi amaana barke alxuraanul karim sëriñ Muntaxa tegal ko ci 800 mille franc muy 1 million mu jox ko. ni ko ban soxla nga am. wallaahi dëgg la. cheikh gis nga 200000 yooyu. bu ko waaj a indiwaatoon ngir kees ñu présenté ko sëriñ Muntaxa mu jël 700000 wala 800000 teg ko ci muy 1 million. wallaahi dëgg la. waaye dafa rafetul. Mhm. dafa jekkul ci jëfin gi. Mhm. xëy na mën na am soxla bu ko jaaxal. Mhm. mën na am location jaaxal ko ndax président wu daayira la. wala ki ko joxee ci daayira ba la bokk. Cheikh li tax mu jël engagement boobu am na lu mu amul. moo tax daayira yi. daayira yi. keesu daayira yi. dee leen ci dimbalante seen biir. keesu daayira yi. ñu ciy social. nañ ciy social. Mm-hmm. am na ko feebar ku ne ci daayira bi. Mm-hmm. bu nu demoon ni sëñ Muntaxa ah dañ la doon indil enveloppe bi kat. Mm-hmm. wala sëriñ Babacar Si Mansour wala benn xalifa. waaye daayira bi dafa am ko feebar mu jël xaalisam def te ni leen faji leen ko. dëgg la mais nit ñi ñoo dul wax sëriñ si bu njàkkaarloo ñoom li xew ak li war. moo tax defin boobu ñaaw na lool ci waa ji. man am na ku ma woo. koo xamante ni mën naa def na sax vidéo moom ci boppam kin foog ni moom la. Mm-hmm. parce que euh, mooy mooy euh, mooy boo dee yaa ngi seetaan seen TV am na publicité bu ma doon def. Mm-hmm. ak benn waay buy jaay ay liquide ak ay diw. Mm-hmm. moom moom dafa yoroon talaatay Cheikh Ibra. moom ci boppam. mais moom moomu. Ahmad euh, ah, Ahmad kii Ahmadou Bamba Niang waaw ñu bari dañoo foog ni moom la. Uh-huh. ci saa si def na vidéo waaw woo na ma deux heures du matin ni ma mm-hmm. damaa yoroon daayira bu mel noonu mm-hmm. doo baal alma sama téléphone ñu baree bari dañuy yaakaar ni ñu bari bari dañuy yaakaar ni man la mm-hmm. mais Mouhamed loo ma ci mën a jàppaleel euh, nit ñi xam ni du man def vidéo ma jox ko numéro waa tës. Hmm. boo xoolee moom vidéo mu ngi nii. waaw yónnee na ma ko. gis nga. ndax yaa ma ko présenté woon ci seen TV. très bien. Hmm. bu ko defee du moom. Hmm. bi ma ko yónnee dama ne lii ñaaw na lool. rafetul jekkul. bu dee yaa ngi sa téléphone Cheikh nga jëlal ma leen ndax itteel na ma bu baax a baax alma alma alma la leen ndax ki bëgg naa ngeen xamante ak moom. émission yi ma def yëpp boole naa ko ci. mooy mooy ndox bi alma ko. bii nii. xaw lii na xanaa seex di nga ko baal. waaw may may nañ la ko moom. wallaay may nañ ndax ndax ndax ndax ndax seex kii. mooy mooy mooy Mouhamed Yatassay gis nga sànq mu may woo téléphone. léegi rek moom laa mujjee gis ah gis nga mu ngi nii yatasaay Aquatera mhm. mu nekk kenn ci man mhm. démb fi lay yendu kilifa gu maga magam mag la mhm. lu man ne mu ngi ci ndox mi nag li tax mu neex ma mooy day gaaw a reesal ñam ndox mi li tax mu neex ma gis nga tin bi ngay am te itam dangay ngay da mar foo toll <laughs> uh-huh. di naan foo toll uh-huh. mu bokk ci ma nekk euh, nit ku unique nit ku sincère démb midi mu ngi fi ba vingt une heure vingt deux heures te kilifa gu mag a mag a eh mag la bu gaaree fi otoom ñëpp dañuy war otoom di ko xool waaye mu am ci man cofeel ba ñibbi këram mm. ci guddi gi dana ma barke yonente bi dama laa bëgg man ko barke yonente bi maa la raw ay njabootam mm-hmm. kilifa laa la gu mag gu mag a mag bu ñuy def yenn émission yi dinaa ko forcer mu bokk ci sponsor yi moom jàppale ñu ci émission yi ndox maa ngi nii baax na mm-hmm. am na solo na ko ñëpp di jënd mm-hmm. biteel maye. ni ko ñëpp bàyyi xel di ko jënd. mu ngi noonu kàddu yaa ngi noonu. Mm-hmm. macha allah yaakaar naa ni uh, lii fi fi mu daan la it muy uh, Ahmadou Bamba moom nga xam ni boroom talaatay yi Cheikh Ibra Fall <coughs> doon ko def ca Touba TV te léegi mu ne Africa set wax fa dëgg yàlla leer na ñëpp ni du moom wax fa dëgg yàlla ngir waajee. su ma tu su ma la sant xaw ma jaaj waaw ñoom xam nga <laughs> ñu baal ma ma tooñ leen tuuti dana xaw a njublang mais macha allah kii moom xëy na ñang la sant moo gën a njublang ñëpp waaye du moom it wax dëgg yàlla. ngir ndax say kal lañ Euh, euh, weddi du ragal setal sa der la te li nga xam ni histoire dugg na ci histoire à vie jot na nag ku ne xam ni wax fa dëgg yàlla du borom talaatay Cheikh Ibra du borom euh, kaay baax yaakaar naa du moom wax dëgg yàlla beneen waay la te it Aquaterra it wax fa dëgg yàlla Mouhamed yow loo dugg ñu dañ ciy dugg waaw waaw dëgg yàlla loo dugg dañ ciy dugg kon ñu nit wax fa dëgg yàlla jàppante na nag ndox mi ndox mi bokk na ci sunu ndox daanaka désormais man moom lay naan. ah bu gëtee ci boutique yi moom lay laajte dootuma naan beneen ndox. moo ma gënal de. ah jeex na moom a gënal de. jeex na kon Mouhamed. waaw. Oustaz kàddu gu mujj gi. kàddu gu mujj gi mooy ñaan yàlla mu defal ñu jàmm yàlla defal ñu sutura ndaw ñi li ma leen di wax ñaan li ma leen di ñaan saa su nekk xale yi nañ moytu TikTok bi. Mm-hmm. wala ñi ci nekk nañu ñu leen di ñaanal ndax bët dëgg la bi ci des mooy way jur yi maa ngi leen di ñaan seen kër yi ñuy vidéo ànd ak seen ay doom di ko tiktok muy tasaaroo ci àdduna bi am na koo xam ne mën na fa jaaree ba xam cirque bi dugg sa kër way jur yi nañu moytu tiktok bi nañu gi ñi nga xam ne ñooy ay ndaw te aju kër sëriñ si ndax lépp maam maaram mbàkke la moo njabooti cheikhul xadim moo njabooti seydil xaaji maalik nañu doon ay taalibe te nangoo ommatu te topp ci ginnaaw sëriñ si buñ ko defee ndam rek lay doon taqabbalallahu rabbuna si daawatana mimma nuhibbu bihi bi jaahi yaasin hmm. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu allah di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom oustaz Mouhamed Mbaye ci disponibilité bi wax fa dëgg yàlla ku ne xam na kilifa gi mu doon ci réew mi ku xam ne wax fa dëgg yàlla cër bi ko suñu borom defal ci réew mi ak defal ci xolu nit ñi macha allah ngir jëmmi yonte bi moo tax seen émission tànneef macha allah duñ doyal ci moom te it nii lan ko nar a jàppee incha allahu taala comme que yonte bi mooy suñu modèle li ci ëpp ci dundam danañ ko danañ ko jàngale ànd ak oustaz Mouhamed ngir defalee ci sunu dund ñu nit kon wax fa dëgg yàlla ci noonee ba léegi am na soxna soo xam ne nag mënu ma koo ñàkk tudd muy soxna Amsatou Seck moom oustaz dafa muuru macha allah am xëy na société boo xam ne da ko créé tuddee ko xijaab am sa xijaab fashion moom bu doon sagom jigéen ñëpp dañuy muuru muraay bu jekk la wax fa dëgg yàlla yaakaar naa ni day def à chaque instant un concours boo xam ni ren hijab di xool jigéen ñi seen muraay gën a rafet macha allah mu décorer leen yaakaar naa édition bii di ñëw incha allah taala le premier janvier la kon macha allah dañ koy encouragé bu baax a baax. te dinañ fa ànd sax. dinañ fa ànd man ak yow ma seeti ko. jeex na incha allahu taala bokk ci ñu koy dooleel bokk ci ñu koy may sañ-sañ heure boo feexee rek. jeex na tuddati sax. am saa hijab am saa hijab incha allahu dinaa fa ànd ak euh, Bamba. Mm-hmm. ba cuun Bamba dinaa fa ànd euh, Cheikh. Mm-hmm. ñu daal di la seet ñun itam. Mm-hmm. Euh, bokk ci ñi lay dolel tabarakallah wax fa deug yàlla kon jeexna amatu amatul nuñ ciy teg di ko baax baax di len jaajeufal yéen ñi nga xamni même bu fekkee wifi ngeen yor wala da ngeen jënd connexion ba mu yomb len jot bi ngeen na jox ngir setanu rek wax fa deug yàlla mënul len ko fay ak macha allah sama DG bi di sama technicien muy Cheikh len jox deug jëy benen yoon wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh